alhamdulillah Assalamualaikum, Warahmatullahi taala Wabarakatuh. barakatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV jikko yi rafet yi bon nag ñu dem ci beneen borom xam-xam boo xam ne al imam Hasan ibnu ali Cissé radiallahu anhu doomu sëriñ ali Cissé ak fatimatu zahra di sëtu cheikh ibrahim Niass radiallahu anhu di koo xam ne yar nañ ko jàngal ko xam-xam mu dem jàng ci réewu arabe jógee fa ñëw jàngil Angleterre ca Britagne ñëw dellu si nekkoon ak baayam ak baay di ànd ak ñoom ci ay tukki rawatina tukki mi nga xam ne mooy tukki mi nga xam ne moom mu jël xamal baay ci àddina bon nag liñ ko tànnal mu waxtaanal ci tey mooy li mujj ci dundi baay ay weeram yu mujj ay fanam yu mujj ay saam yu mujj lam ca def ak lam ci wax ci lu baax ak lam ci digle ak lam ci sattaane imam Xasan ci mi nga xamné mo sédé lolu mom lañuy jox mu waxtaanal mbooloo mi ba nak andlé nak yarak tégin cheikh abdullah ibrahim Niass di nuyu itam mbolém kilifa yi fi tew cheikh mohammed Nazir mi ngi ni tok cheikh mohammed Lamine cheikh al Mamoun ak mbolém sen rak fi nek ak muqaddam yi nga xam ñu fi teew itam ñu gi nuyu ñep kenn ku nekk ci turam ak santam gannaaw bu cheikh mohammed lamine waxe wax ju fasaha jim fi wax nga xam lépp daf ko tek ci alquran ak sunna ci tarikh bu wér liñ warona def moy ñaan rek tas mbolom waaye ñaan ngeen ñu ñu wax ay baat ci bés yu mujj yi cheikh al islaam xaaji Baye Niass nit la koo xam ne li cheikh Ahmada Tidiane tontu woon taalibeem ba rek mën nañ koo tontul Baye taalibe ba dafa laaj cheikh Ahmada Tidiane ne ko hal yukzabu alay ndax danañ la fenal mu ne ko naam mu ne ko su boobaa na ñuy def muy mu ne ida anni shay'an fazinuhu bi misani shar'i fa ma waafaqa fa xuzuh wa ma xaalafa fatrukuh lépp lu ngeen dégg ne ci man la soxte ko man ahmad tijaani peese leen koog man ndaxam sharia su ko sharia accepté jël leen su ko sharia bañee bahi leen bàyyi itam lépp lu ñuy nettali ci moom rek mën naa tegu ci alquran ak sunna dama toog ci nigeria benn waaye di ma taril xaside baay ba àgg ci fi baay di wax de la siyama moom moom moom waa ji mu jàng ne la siyama haza rafiu shami walaw bada xalifata tijaani ma ne ko dee taxawal baay du wax loolu ndax bàyyi jàngale woon na ci dar si tafsir ne firawna ba mu yëkkatee boppam ne laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin laaye ja ja topp rek yàlla daf ko caa wàcce ci baat boo xam ne mooy màndaxaak baat bi nga xam ne ci la ko weele boppam al ana wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin moom muslimina la askan boppam yàlla askan ko ci mufsidine yi yàqe yàqee jàngal ñu itam ne yonent yàlla yunus bam suufeelee boppam ci ñetti lëndëm ya lëndëm ak guddiga ak lëndëm ak géej géeg lëndëm ak biiri jën wa mu wax ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ab yonent la boole boppam ca tooñkat ya yàlla wax ci xaqam ne fajtabaahu rabbuhu wa jaalahu min alsaalixina mom zalimin la waxal bopam yàlla tek ko ca salihin ya kon bay du wax la siyama haada rafiu shaani mu ne ma huwa qala an nafsihi la siyama haada alxaqiru aljaani amma ana fala aqulu haada fi cheikh bàyyi dafa wax ne ku xebu xeebu ya kon bi waye man lolou duma ko wax ci bay nit ku kowe ki lay wax nit ku kowe mbir kii man lolou lay wax ci bay mom nag lu ko neex mu wax ci bopam lepp lu ñuy wax ci bom soko sété ci alquran wala nga sét ko ci sunna rek dang ko gis fofu ay bésam yu mujj man and na ak mom tukki ak suma najaay cheikh lamine lamin lay joggé nañ fi dakar and ak mom gunge ko mu faju ji pare and na ak mom tukki mak suma najaay cheikh mohammed maamun muy tok wax na ca biir ba maamuna ngi toog ne ma dañ ñoo waxoon ne dee nga sa bàyyi jàq ca loolu waaye maa ngi lay xamal ne yàlla xamal na ma ne man danaa dee sëriñ Aliou dee nga soog a dee sëriñ sëriñ maamuna ngi toog ñu jëm ñu dugg ci oto bi jëm burjul xaaxira koo xam ne yàlla xamal na ko loola lan mooy ñëw ca kanamam lu gën a fir loolu ba ñuy suñ tàggoo bu mu jëppari maak ñaan ñaan gi gudd ak man lool ba ma wax sama xel ne xëy na lii daal jataay bu mu man musuma ñaanal ñaan gu guddee nii ba génn mu mel ni yàlla def ko xamal li ma wax ci sama xel mu ne kabir dabal ma asal ma ñëw mu ne ma jox ma sa loxo càmm mooy ma bindal la ci loo xam ne duma ma dee mukk lu may teew nga ca déwén sa ci la ñëw Londres lii ñuy neli bàyyi ci boppam ca bisam bu njëkk rek waxtaanam mooy waxtaani saalixina yi naka lañ dee nettali na ma sama maam alsan naka la génne àddina teg ci baayam ak yeneen kilifa yoo xam ne ci réew mi bu guma leen a tudd ndax wax ji dafay gën a yaatu kon waaye nene ma sa maam alsan dafa jaayante woon ak suma baay ñoom ñaar ku ci njëkk a dee ka des di dund dana teew ca bàmmeelab ka dee wàcceel ko fa kaamil mu ne ba mu feebaree bind na suma bàyyi leetar booba suma bàyyi jàngatut man maa ko jàngal leetar ba mu wax ko ca leetar ba ne ko dama feebar ba óolootuma suma bopp maa ngi lay dénk suma doom ji ñuy wax àlliyu mu ne alsaan génn àddina ci ñetti fani weeru koor ba wax ji ñëwee kawlax maam alaaji ne suñ demee ba naan danañ ñëw bañ naa ne mu jógee fa dem jooson dem jaale ji ak itam matal ahd bi nga xam ne doxoon na seen diggante wàcceel ko fa kaamil te mu ca wàcce kaamil ba ba mu ko wàccee ba pare ñaari doom yi àndoon ak moom baay ak alaaji muhammad xalifa mu gesu nelen len leen marsiyaal leen ma sama soppe yi tedd fi muy alsaan ak samba tiane mamam mamam bay dal di bind qasidam ci sasa bañ demé ci mbolo mom bam laaje ali yi mu ñu ko denk bañ indi ko mu nek man de li na tafsir alsan day ki lay denkane waye ki de ku ko bolé ibra mu dem mom tam loolu la ca tek ca jotaay boobu la ko ak baye bamuy ñi disi moom itam ci la ko feebari day am jot ci yoon baye mu ne ñi ngi dox waaye waxtu ñu rek lañ danañ taxaw nopp mu ne bañ ci kosi mu ne ko bay ba gannaaw sa yaram dafa soye bo nga tëdd fii noppalu tey ba ëllëg mu ne ko man day du ma bañ ku ma digal kon nañ wàcce yi toog fii mu ne booba bàyyi morgéey jin jin géey morgéey jin mu mag ba mu déggee wax ja mu dem àgg àbb benn oto boobu benn oto rek nekk ci benn tubaab bu ñuy wax dipo moom ko pour jëli maam mu ne ba oto ba mu ne suma bàyyi ne ibratul waxoon naa leen ne tey duma fanaan fenn lu mooy sama kër xaw ma kañ ngeen di nangu suma xutbaan yetu bi mu ne bañ demee ba kër defe naa ñetti fan la fa maam alaaji am dal di génn àddina ci fukki fan ak juróom-ñett ci chewaal bàyyi nett lii itam na bàyyam génnee àddina mu ne ma bés ba muy génn àddina ñun doom yi dañoo daje woon jàngal ko kaamil pour yàlla saafara ko ci feebaram mu ne man maa mujj jàng ci ña doon jàng kaamil ba maa nga eewal ca sa tajiduni insha allahu min alsaalihin mu ne ma dugg ci sama baay na ko bàyyi man de am naa yaakaar mu ne ko ah mu ne ko man maa mujj jàng te maa ngi jàng sa tajiduni insha allahu min alsaalihin mu ne ko waaye insha allahu la wax de mu ne ko waaye bàyyi min alsaalihin a ji mu ne ko Ibra jàngal woy ayyama la jëlay ni qadaytu fala udwana mu ne ba waxtu génn àddinaam jotee mu ne bàyyam waxtu tusubaar la mu ne moom moo ko jiitee tusubaar ak tàkkusaan ndax ba mu ko jullee tusubaar ba pare ne na ko walil musaafiri an yajmaa bayna alwaqtayni booleel ba ci tàkkusaan jiitam mu ne mu jiite ko tàkkusaan bam pare mu ne bayam jàng fatiha ñépp di dégg mu dal ci bop laan ba ci alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un mu taxaw foofa na ibra waccel ma jawahirul ma'anib mu wàcce mu nako jàngal ma muqaddimatu bi mu ne mu jàng mu nako jàngal ma khatimatu bi mu ne mu jàng ba fa kat ba wax ne وبهذا القدر يكفي للمتبركين تبرك من سما باي دال دي تك تي خاتمه كون غنا باي دا دا نيو نيتلي صالحين اي سين نيت كو سين ني نيانه ني نيتلي لاني فكي تي موجي ميتام دغ دغ لو مانولا تي واخنا نه باي دا نا واخ سي سيدنا عمر بن الخطاب نه دغ سوفل ما te néew na bu mu amee moo ma gënal fen yëkkati ma te néew na bu mu amee bàyyi liñ koy waxal fii yépp dëgg la te lépp dëgg di koy yëkkati la ñi ko xam ak ñi ko xamut ñi ko bëgg ak suñu waxee rek nga bëgg ko Cheikh Mouhamed Leye wax na léegi ci waxam ne ci ngëneeli bàyyi ak ci xam-xamam bu yàggut benn Chérif daf ma téléphoné ñu di ko wax Cheikh Mal Aynayn ci xaadir yi la ne ma Assane yow bëgg naa la te gisuma la waaye dinaa la digal sa maam sama xarit la woon bul foog ne xaalis bu mu daa tasaare ci nit ñi moom la ko nit ñi bëggee woon wala xam-xam jikko bi nga xam ne moom la jiitoo woon nit ñépp mooy boroom ngëneel bu nekk rek bàyyi nangul na ko ngëneelam لما جابل نياري بيتي ملايو فما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وإن أشد النقص أن يرمي الفتى قز العيب عن عينه بانتقاص الأفاضل من باي بروم غنيل بوم جيس رك نغول نكون غنيل خولا ني ميلون تي سيرين سوباخ سو جانغي تيريمي نيم شي احمد بامبا سيدي حاج مالك سير ييب تي دنرن تي تيريمي ndax xam-xam xam-xam ak njub fu mu nekk rek moom nangu na ko te may may nit ki lu mu foor foor rek wàññiwut ci may daay dara Cheikh Mouhamad lay wax ne soo gëmmee rek koo téye mën na laa waxal ci bàyyi Isaaka keroog dañuy waxtaan mu ne ma soo gisee bàyyi waxtu wu tëddee ci nelaw mën naa waxtu wu tëddee ci lalam mën naa nelaw may beneen nit daf koo tiitalut ndax xam na lam am fa yàlla dégg nga wax ji mooy lam am fa yàlla xam na ko moo tax may beneen nit tiitalu ko te taalibe bi su dëggoo fañ ci bëlee sëriñam rek lañ ko war a tibbale walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay gannaaw bàyyi mooy bàyyi doom yi mooy bàyyi taalibe yi mooy royukaay bu mag bi li ñuy nett li ci moom yépp pour junni ci mom la fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fatli dana dana jëriñ way gëm ñi imam junayd am na ku ko laaj ne ko inda zikri salihin tanzilu rahmat ma za yanzilu inda zikrillah dafa tiit bëxam waaye ñun li ñu itteel rek ci jataay bi mooy inda zikri salihin tanzilu rahmat jataay bi suñ ci amutoon dara lu mooy liñ naan bàyyi bàyyi rek doy na ndax turam mën naa wàcc ay yërmande mën nañoo génne ci muskile yi nekk yépp ak mbooleem li ñuy tawat ba mu jógee di ñëw London nit ak suñ yu la woon comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ba mu wàccee ci aéroport rek xale bi ku njëkk a nuyu mu ne ma Assane kii nu tudd ma ne ko kii de Ali yu la tudd mu ne ma loolu de oluwu la ma ngay def tafaawul ndax yonent bi def daa def tafaawul ci tur yi su ngeen fàttalikoo ci sa bàyyi ca Xudaybiya ba waa Màkka yi yónnee Suhayl mu ne Suhaylun sahula amrukum gannaaw Suhayl lañ yónni kon seen mbir yomb na bàyyi tam noonu la meloon di def tafaawul ci tur yi ba mu ne ma xale bii nu mu tudd mën a ko Aliyu la tudd mën a loolu de oluwu la bam demee fañ koy dalal itam ci étage bu mujj ba fa la dal waaw ci hôpital bi muy Moustapha Saint Thomas ci Angleterre ci Westminster ci digg Angleterre itam mu di la fàttali ba tey Ibou Diouf woyam wam waxoon ne biddiw bu mag ba fàq na daanu ji London pays Angleterre ba mu woyee woy weeg ba bàyyi di dem Angleterre daanaka fanweeri at wala ñeent fukki at na fa ñëw ak leer gaag wilaaya gaag xam-xam baag dara manquewut soo ko seetee ci xam-xam teg fa xam-xam bu leer ñii doog yonent bi ci lu nekk ba ci feebar bu bét yonent bi nit seet si na ko ci feebar ne ko yaa rasulallah innaka la tuaak mu ne ko kama yuaku rajulaani minkum comme ni ñaari góor di feebaree ci yéen noonu laay feebaree ma itam bàyyi itam daanaka doon na loolu ci moom niro yonent bi ba ci lan lañ mu jaw sidna omar amna ku ñew diko laaj ci riba mu ko riba nak dafa bokkon ci laaye yi mu wàcc ci yonent bi yonent bi leralu ko dab ko bàyyi man ma jang journal rek ñëw na ko journal bi dañuy wax ci intérêt banque yi ndax riba la wala du riba amna borom xam-xam yi wax na du riba am na ñu wax ne fii xawlaani mu ne ma xawlaani lan te ñoo wax ne xaraam na wala xaraamul rek hmm? mu ne ma suñ ko mënoon a éegal ci xiraat kon dana mën a nekk xiraat mooy ñu lebal la xaalis tey premier décembre nga jël xaalis boobu dem liggéeyi jee ko su weer wi jeexee wala su at mi jeexee nga delsi ak xaalis bi ñu seet lan moo nekkoon capital ba ñu teg ko fële ak say coono la nekk di ripo wala bénéfice ñu def ko fifty fifty yow mi moomoon xaalis bi ak ñu doon liggéeyee xaalis bi mu ne suñ ko mënoon a éegal ci xiraat ma ne waaw Abdoulaye ak Ubaydullahi ñaari doomi Sidna Omar dañoo tukki ci jamono Sidna Omar dem Sham mu ne bañ demee ñu fekk fa Abu Musa al Ashari mu ne Abu Musa نعم لين يا ابني أمير المؤمنين لو رأيت طريقا أنفعكما به لنفعتكم هنا بيت هنا مال لبيت مال المسلمين تشتريان منه قمحا وإذا رجعتما إلى المدينة تبيعان وإذا أربحتما تأخذان الربح وتردان رأس المال إلى بيت المال mooy leen maa ngi amee xaalis boo xam ne baytu maal moo ko moom jël leen ko ngeen jëndee ko mbokk booba benn irdat ci xam ci Sham mi ngi jar ñaari dirham te soo ko yóbboo Medina mën nga koo jaayee ñeenti dirham mooy leen su ngeen ja su ngeen jëndee xam bi dem Medina su ngeen jaayee ba tono ngeen delloo ras rasumaal bi baytumaal mi ko moom bénéfice bi ngeen jël ko ah ñu def noona jënd seen mbokk et yóbbu Madina bañ demee sidna bañ jaayee xaalis bi double ñu bëgg a jël seen bénéfice sidna Omar na déedéet ndax daf leen defal loolu ndax yéen yéenay doomi émir yi moom ndax defal na ko ñi àndoon ak yéen ci jeysi bi ñi des ci jullit ñi àndoon ak yéen ndax defal na leen lu mel noonu damay jël xaalis bi yépp delloo ko baytul maal ras maal beeg bénéfice yépp dañ koy delloo baytul maal abdullahi noppi obaydullahi daal di wax baayam ne ko gannaaw xaalis bi su réeroon wala su sànkoon dañ koo war a fay kon su juree ñun ñoo ko moom ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al mu'tamanu daminun nit ku suñ ko óoloo ba ba dénk ko rek moom moo warlu lañ ko dénk su réeree itam daf ko war a fay omar daal insisté ne dafay jël capital beeg bénéfice bi yépp def ko ci baytimaal bàyyi mu ne fekk am na ci saxaaba yonent bi ñu fa toogoon ñu ne ko law taatabiru haada amra xir sidna Omar d'accord defal leen ko xiraat dal di jël rasmaal ba dugal ko ci baytul maal ribx ba mu seddoo ko xale yi jël cinquante pour cent ci bénéfice bi def ko ci baytul maal cinquante pour cent mu jox ko xale yi fifty fifty comme li oustaz wax cey nit ku mokkal say masala ba tëdd ci lali dee mokkal say masala ma ne ko lu duwut loolu dem nañ ba waxtu julli jot mu ne ma ndax waxtu julli yu jot na ma ne ko waaw mu ne ma man naka laay def tey ndax ñu ngi takk pikiir bi ci suma loxo lu may tiimee wala naka laay jàppee ma ko yow bay bul julli tay man boba ma ngi taawi rek la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla tegu ben bakkan lum mu mune ma lol la Malik wax wa man lam yajid ma'an wala mutayammama fa arbaatul aqwal yahkina madhhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qala malikun wa asbaghu salla wal aba'u li ashhabah mu ne ma Malik def ne laa yusalli wala yaqdi ku dem ba nga xam ne amoo ndox wala mënoo jëfandikoo ndox wala mënoo amoo tiim mu ne bul julli te soo demee ba am ndox wala am tiim sax bul fay mu ne ma loolu la Malik wax amma ana fa usalli waaye man de man damay damay julli man jël na rayu abul qasim abul qasim moo ne yusalli mu ne man damay julli man te duut ne ay masalaam ci julli géeg ci riba bi loolu rek foofu la ko emale waaye ba mu demee ba nga xam ne mënatuta téye kurusam gi sax di wér daa loxoom baaraamam mu fàttali ñu imaam Junayd bés bi ñuy génn àddina nekk benn mu fekk ko muy sonn di fii di jàng alxuraan di di wàcce نكو منكو وفي هذا الحال يا أبا القاسم منكو سمو دندون جلي أت دمو باي جسم أورادي در حال بها وصلت إلى الله تعالى في بدايتي كيف أتركها في نهايتي حال بون قمنا بمي كماسة موما أقلي وانت يالله maka lay dem ba eg ba nek ci sama nit diko bayyi bayyi tam soko topere da nga gis lolu ci muy alquran muy Paris muy Londres sooy seeti bàyyi ci ci hôpital te xamoo ban chambre la nekk li lay xamal ne mi ngi fii rek mooy yaa ngi dégg muy tari alquran nekk na di ko tari ba ma yërëm ko dem utal ko mu Murattal ndax moom la daa déglu ci néegam mu ne ma xay li mënta wattu sama tari mi di bàyyi ma ma tari rek soo déggatut suma baat sax xamal ne maa ngi tari bés bi nga xam ne ci la opéré opération mujj ba tey li ñuy wax ne kaana yatafaalu bil asma dafay wax toujours ne nañ ko muñal ba waxtu julli wi jot mu boole tusubaar ak takkusaan te tusubaar jotee ñu boole tusubaar ak takkusaan am na téere boo xam ne ñi daat ànd ak baay yépp xam nañ ko ci loxom muy al azkaaru nawawiya dana ci jàng ay bunt baabu maa yaquluhu almarid ida ayisa min xayaatihi baabu maa yaquluhu almarid ida ishtadda alalam wa fi nihaaya mu ne jàngal ma xaatimatu bi nga xam ne salaasuuna xadisan alayha madaarul islaam moom lañ ko mujj jàngal fanweeri xadis yoo xam ne lislaam bi yépp ëmb na ko maanaam l'islam bi yëpp mu ngi ci cercle boobu moom lañ mujj jàngal baay mu jullitu subaar boole ko takkusaan suñ daa dem dañ koy ànd ak moom ndax daf daa wax ne bokk na ci mën a nettali taarix fekkee suñ demee ba muy dugg ñu téye ci loxo muy wax laa ilaha illallah ñuy wax muhammad rasulullah ndeysaan maa ngi fàttaliku benn bés ñu yóbbu ko yàggal ko lool ñu ñëw ne ma man day tey fañ ma defoon dama seet seet fu ma tëfli aw ma fu ma tëfli ma fàttaliku benn bés ma ànd ak lamin dem ci durusul xasaniye ma bëgg a tëfli aw ma fu ma tëfli lamin ne ma tëfli fu la neex ma itam ma mujj rek jël wax jooju di tëfli rek waaw bañ demee bañ yóbbu ko ci opération bu mujj ba muy génn rek sa aada toog Aysatu ak si mu ne ma asan yow mi foogoon ne danaa dee tey deetuma tey xaw ma ban bés la waaye tey moom deewuma ma ne ko ah mu ne ma maa ngi nii di génn saadatoo ngi nii ak Aysatu di dugg ci man deewuma tey gannaaw loolu dund na ñetti semaine bam demee bañ yóbbu ko ba mu dellu si ci nelaw yi kuy pikiir bokk na ci sunni yëtoom du nangu mukk ñu jam ko pikiir bi pour nelawloo ko lu mooy baatam bu mujj mooy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah da ngay gis baaraamam bi di def nii ba pikiir bi daanaka loolu lay mujjee wax ñu soog ko pikiir te moom bokk wax na ne mën naa toléré ñuy opéré ko te du rot waaye docteur yi dañ na ko fii dégéree métit wi toll yow mënoo koo def tasawur xelam doomu aadama mënu ko def tasawur ala foog pikiir bi te ñu lay xamal ne pikiir bi ki ki la koy defal si bokk na ci ñi nga xam ne expert yi nga xam ne bokk nañ ci ñi ko gën a man fii ci Angleterre muy docteur Airwise moo ko defal pikiir boobu dañ demee ñu ne ma balaa ñaari waxtu dinañ delloo si góor gi ñaari waxtu jeex na gisuñ ko ñetti waxtu jeex na gisuñ ko ñeenti waxtu jeex na gisuñ ko ba docteur bi jógee ca saal ba ñëw ne ma maa ngi lay bégal góor gi soowe na léegi tey ñu indil leen ko ba mu ñëwee ba tëdd li ñu xamal ne soowe na waxtu wi mu daa tari alxuraanam ji ba mu jotee rek dafa commencé di tari te mi ngi nelaw suboom bi muy tari ba mu jeex xanaa kon yàlla may na ko ñaanam gam doon wax ne فلتجعلن الحفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم موكل تيري بي ديكو تاري بو ديك بيتك بوكنا سي اي كرامات توبتو اي جوليم بوكنا سي اي كرامات دا دون فورسي دي تاخاو مانكو باي لا يكلف الله نفسا الا وسعها سي جولي تيميس مو توب ba ñuy liqaam gee rek mu dal di buur taxawaat xol mayu ko ko awraat yi itam noonu la ca def nee naa ba mu demee ba mënat jàng ay awraata ci kurusam ko indil ndox ñu may man ma dellu ma foog ne dafa bëgguta naan mu dem ba ca kanam mu ne ma yal xasan kuntu aqra'ul wird al lazim wal muridu tijaani ida kaana yaqra'u lwirda lazim laa yatakallam wala yashrab mu ma dama doon jàng wirda lazim te teewut kurus te taalibeeb tijaan suy jàng wirda lazimam du naan du wax ma ne ko ah bàyyi man da jàng naa ci téere bu ñuy wax du rotti taaj ñu ne mën naa naan tuuti mu ma loolu lañu wax rek waaye walaw juraatan ab góox sax mayuñ ko ko naan dafay fay xaalat sikkar sopp nañ sax soo jeexalee sikkar sax nga toog ba ca kanam nga soog nga xam ne kooku awraat yi nga xam ne moom la jaayante woon yàlla topp na ko ba ca mujj waaye doktooram bi ko doon faj li ko gën a yéem ci sëriñ bi waxtu wu ko seetee rek ne is very strange his body is sick and his heart is clean nu ma lu doy war jëmm jaa febar way xol bi dara jotu so le ko lan la wax manako mune al jismu maridun wal qalbu salim mang ngi koy fàttaliyaale laaya ja yowma laa yanfaw maalun wala banuna illa man ata allah bi qalbin salim su de nga gis mu alhamdulillah julit la lépp lu aju ci diine ji neex nako kontaan na ci muy alxuraan muy yonent bi lépp ko nekk te xol bu sell boobu dafa yàgg ci moom bàyyi dara beesut ci moom ci nihaayam soo jàngee nihaayam rek soo jàngee bidaayaam rek mooy nihaayam wax na ci waxam ne su ko yàlla digaloon mu def tasarruf ci ci nit ñi su ko yàlla mayoon firul tasarruf kon moom dana tànn def tasarruf ci xol yi pour ñu ñeel yàlla pour ñu nekkal yàlla dañ daa ànd ak moom ñu nekkoon xaaxiraa ngi nii waxtu wu ñu demee sidna al xuseyn pour ziyaara ji bañ indil ko muxallafaat rasulillahi sallallahu alayhi ndax kawar yonent baa nga fa dog dogit ci buubi yonant bi ma nga fa dammitu eti yonant baa nga fa tusungalukaay yonant baa nga fa kaamili sidna Usmaan bu mbind ak loxoom ma nga fa kaamili sidna Ali bu mbind ak loxoom ma nga fa waaye lu ñu yëkkati rek mun a tegal ci suma xol bi ndax mu sell loo yëkkati rek mun a ko tegal ci xol bi ndax loolu bàyyi nga ci jàngale dars bu rëy gannaaw jumaa yii ñooy néegi yàlla yi ci kaw suuf jëmm ji néegi yàlla ci jëmm ji mooy xol bi rek xadisu qudsi ba wéral na ko maa wasiani samaai wala ardi wa wasiani qalbu abdi al mumin xajuma ci asamaane juróom-ñaar xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolab suma jaam bu gëm yonent bi wax ñu itam ne inna fi l jasadi mudratan ida salaxa salaxa al jasadu kulluhu wa ida fasada fasada al aw lumbang ci suu yéwénee jëmmi yàqu na mu ne moom mooy Arabi wax ci benn téeréem ne doomu aadama mu ne mi ngi làmboo mbóot moom xam ne kenn ñi ma ko wax su juddoo ña koy enu su feree ña ngi koy enu ba mu mat waxambaane nekk nit ñu di ko enu ci daaba yeeg waruwaay yi ci suñu jamono ci oto yeeg otoraay yeeg avion yi bato yi ba su dee sax dinañ ko enu ba ca ko sukko suul mu ne mbóot mi nekk kenn mu ko wax bàyyi ne ndax gannaaw xol bi mooy place yàlla ci nit ki loolu mooy mbootam lu tax ñuy enu nit ki ci waxtu bu nekk ba nga xam ne su dee sax dinañ ko enu su ko suuf ci suuf si sonn googu mu doon sonnee pour defar xol bi moom feeñ na ci moom ba docteur ba nga xam ne sax du jullit waxtu wu ko seetee ne jëmm jaa ngi feebar waaye xol bi dara jotu ko te yàlla wax nañu ci alquran ne yawma laa yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim bés ba nga xam ne alal du ci jëriñ doomu aadama ay doom duñ ci jëriñ doomu aadama lu may ku dikkee yàlla xol bu sell xol bu wér ñaari wàll yu dañoo dund ci jamono kii ñàkk lool kii am lool sëriñ bu ñàkk di ebal kenn ci taalibe yi ne ko damaa bëgg nga dem ziyaara suñu suma mbokk diw nga ne ko nañu ñaanal yàlla te dénkuñu ba mu demee ba ca kër ba sëriñ ba dëkk kër ga sëriñ bi dëkk mu gis muy étage xasr mu laajte ko ñu ne dafa dem seeti émir bi mu taxaw di ko xaar bi sëriñ bi ñëw mel ni buur buy ñëw topp meeg ñu jóge ci kër buur bi gunge si ko ñépp topp ci mun a daal kii daal sama sëriñ dëgg-dëgg xamu ko waaye kii buur la yooyu yëpp ee mun a waaye mun a bi mu waxee ak moom la gën a yéemu mu ne ko sama sëriñ mu ne nga ñaanal ñu ko ñaan gi na nekk ci siraatul mustaqim ku ma gën a al malaaikatu yastaghfiruna dénkaane bi nag soo demee nga ne ko lu duur yàlla rek na ko génn ci xolam mu subhanallah ki adde ji góor pale beeg alal jeeg topp meeg lii lépp nga ko war muy wax sama sëriñ amul dara ci lii nga xam ne su añee du am lum reeree mu naan ko na génnal duur yàlla ci sa xol bi mu dem wax ko sëriñam ne ko mu lu duur yàlla de mooy dénkaay lu duur yàlla rek na nga ko génne ci sa xol bi sëriñam jooy ba tëdd ci suuf ne wallahi sama mbokk wax na dëgg différence bi suma digganteeg moom moom yàlla dafa def àddina lépp ci ay loxoom ñu di ko soppandiku ci lu neex yàlla te dara ci àddina jooju àggut ci xol bi man nag yàlla rafleel ko ci samay loxo def bëgg-bëgg bi ci xol bi ma bëgg ko te aw ma ko moo tax bokkoon na ci ñaani bàyyi muy wax na yàlla na yàlla feesal loxo yeeg àddina te feesal suñu xol yeeg yàlla su xol yi feeseeg yàlla rek su loxo yi feeseeg àddina duñu duñu duñu lor yal na yàlla feesal loxo yi ak àddina te feesal xol yi ak yàlla moom sëriñ boobu xolom sell na mbooleem ñi nga xam ne àndoon na ñoom moom mu yar leen comme ni ko Cheikh Mohamad Lamine waxee léegi seeni xol sell na ndax yàlla lañ àndee woon ak moom ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kenn ci taalibeem yi wax na ne man de su ma gisoon ci bàyyi benn bés lu wuuteeg sunna kon keroog ma tàggoog bàyyi bi ma déggee wax jooju ma ne kooku mën naa wax loolu ndax sëriñam kii bàyyi wax na ne wasaana ilahi nafsiya dahra la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza yàlla sangel na ma sama bakkan bi jamono lépp ba kenn du ma gis may jàng jëm ci loo xam ne dagam ci sharia sëriñ bu mel noonu nag ku ko am taalibe bi mën naa taxaw wax ne man suma ma gisoon ci sama sëriñ lu uuteeg sunna keroog ma tàggoog sëriñ bi benn taalibe dafa mas a dem bi uti sëriñ ba mu demee ba ca sëriñ ba ñu ànd jëm ci jumaa ji sëriñ bi xaaxtandiku taf li mu jëm penk mu dëpp ne man sëriñ boo xam ne mënta wattu adab min aadaabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam du ma ko jox sama bopp ko keroog la tàggoog sëriñ boobu ndax taf li mu jëm penku bokkut ci adab bokkut ci teggin bàyyi nit ak adab la woon dafa am yar maa ngi fàttaliku benn bés ñuy dugg ci im Hussein Chafe naib rais vice président ca Qahira bañ demee bañ ubbi bunt bi mu ne asan am téyel ma sama et bokkut ci teggiin ngay dugg ci kilifa di dugg ak sa et te boobu moom passé na juróom-ñaar fukki at war a sukkandiku ci etam pour gën a pour dëgërloo ndax bokkut ci dugg ci kilifa bokkut ci ëdëb dugg ci kilifa di téye et seetal ma loolu bokk na ci wattu gi mu wattu sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi tëddee ci lalam waxtu wu nekk yaa ngi koy dégg asan kay jappal ma suma loxo ma tuddé loxo ma tuddé walu nday jor yépp sunna la bam démé ba nga xamné alquran ji su koy jàng itam moom moo koy dégg la ma waxon ne ma mangi ba déggato ma sax xamal na ma ngi jang ma ngi ma ngi jang ma ngi tar té mom lépp lér li nga xam ne yonent bi noonu la bàyyee xeet yu alal mahajjatil bayda nga xam ne guddi géeg bëccëg bi benn la bàyyi te mbiram lépp noonu la ko leere bés ba mu njëkk fanaan ci Londres rek ba ma ko gisee ci ëllëg sa ne na ma man sama géwante bi yàqal na ma paj mi ma ne ko loo gis mu ne ma damaa gént nga am ñaari doom yu góor tuddee ma ko ma ne ko xay bàyyi da dund rek ma am ñaari doom yu góor tuddee la ko ma ma déedéet suñ doon jigéen de mën a waaw waaye góor ndono ñëw na rek waaw ca géntam googu rek la tàggee boppam su ma ne ko docteur bu ne bés sàngam dana la eeyu nga dellu sa kër mu ne ma loolu la wax ma ne ko mu ne man de gawuma ko waaw la docteur wax waaye man gawuma muy bés yoo xam ne dund nañ koog bàyyi nuqta bu ci dekk rek moo xam lu mu wax moo xam lu mu ñaanlu bind naa ko ci ay safaxaat ndax ba ma jegee Londres rek sama baay def ne ma damaa bëgg nga bindal ma sa bés yu bés yu mujj sa maam ak bésam bu mujj damaa bëgg nga bindal ma ko ci kayit indil ma ko ustaas mi mas naa ñëw suma kër ñu am ci guddi lëmm di ci jàng keroog ci ay jooy lañ tàggoo def naa ko ci fukki fasal ak benn suma sëriñ maamoon teeloo na yëgal jotaay bi ni konoon danaa ko gën a préparé waaye ci tusubaar la ma yëgal ne bokk naa ci ñuy wax fii tey ba demee ba nga xam ne day ñëw na mu commencé di gis waa alam bale ndax maa ngi taxaw ma naan ma ab Abdou mi taxaw nii nag xaman mati daadoo mi fi taxawoon léegi demal oowal ma ko ma ne ko bàyyi kuy amal mati daabo bu ma ko waxee sama bàyyi mu ne ma kooku sàmma bàyyi la woon ba mu génnee àddina léegi ëpp na ñeenti keet boobu yow sax mu ngi gis waa aalam bële ma xam ne ci tàggoon ak suñu aalam bi bi ko docteur bi mujjee seet ndax damaa ñëw nuyu ko loxo bi sedd ma ne ko bàyyi dangaa liw mu ne déedéet ma dem oo docteur bi ne ko kaay seet ci loxo mi dafa sedd trop docteur bi ne seet ko ne ma xol bi moo commencé taxaw soo gisee loxo bi sedd deret ji moo àggatut foofu te sedd boobu soo làmbee tànk yi danga ko ci ko ci gis bàyyi na lu mu wax te naa daf maa waxoon ne ñu lay wax yëpp bu ma ci nëbb dara ma ne ko mu ne xol bee commencé taxaw mu ne alhamdulillah benn tubaab laaj na ma ca London ne ma sa maam ndax ba mu demee ba gis ne dafay génn àddina ndax tiit na ma ne ko déeréet alhamdulilahi la wax waaw kooku xàmmeewu dund ak dee dundam baax na deeyam baax na dundam dund na ko ci lislaam ba mu dee itam bàyyi na fi ay kàngam yoo xam ne boobu ba léegi ku nekkan ci ab gox mbooloo mi di yokk guddeeg bëccëg sharqan wa garban shimalan wa yaminan foo dem rek mbooloo maa ngi koy yokk te lépp moom la ñuy tudd classe xam ne moom tànkam taxawu fa sax taalibe yi taxaw nañ fa ba léegi ay taalibe nga fa ñu xam baay di ko tuddoo di ko gént sax di ko gis man gis naa ay américains yoo xam dañuy gént baay di muy wax ak ñoom te baay demut Amérique soo demee ba Inde taalibe yaa nga fa soo demee ba Bermude ba Jamaïque foofu dem rek danga fekk ay taalibe benn jamaykan dafa ñëw seet si ma ci at yële ci gannaaw du jullit waaye bu gisee jumaa ji mu ne man daal gisuma sa maam waaye ku gis jumaa ji xam ne xolam di xol bu réerée la moom ci jumaa ji rek ci la tegtaloo ban façon ngi xol la bàyyi amee woon kon nag dénkaane bi mooy nañ jéem sellal xol yi niroo ko suñ sëriñ inna di muhibba liman yuhibbu mu tuyoon nit ki ku mu sopp rek war na koo roy sama baay daana wax ne baay baay rek doyut nañ seet jëfi baay jikkooy baay xam ne lépp dafa rafet amul dara lu ñaaw kóllëre baay dëggoom nga xam ne lépp dafa wér moo xam muy dëggoom ci sharia moo xam muy dëggoom ci xaqiiqa ay silsilaam nga xam ne lépp ci ay ndigal yu wér la taxaw damaa wax ne fu nit ak aadi di jaar rek bàyyi jaar na fa ndax bëggut ñu askan mbir mi yépp ne ay karaama la bëgg na nit ñi def ay effort te gannaaw suñ defee ay effort yàlla mën nañoo may ci barkeem éegal ñi ci darajaam kon bëgg na waxtu wu nekk nit ñi di def ijtihaad di gën a góorgóorlu ci seen diine gën a góorgóorlu ci rafetal jikko yi wax rafetal wax yi rafetal xol yi rafetal bépp jëflante boo xam ne ñu ngi koy jëflanteek yàlla wala ñu di ko jëflanteeg doomu aadama yi noonu la suñu sëriñ meloon ba muy uji boromam ku niru yonent bi sallallahu comme ni ba ci laay riba yi nga xam ne moom la yonent bi mujj tereteeg jaam yi wala moom la wax yu gi mujj indi ci yonent bi mooy masala mi nga xam ne man moom laa ko mujj laaj te booba xaw ma xaw ma sax ne mooy laay yi mujjoon a wàcc gannaaw gi laa seet rek gis ne Sidna Omar tontu na ci ne mooy laay yi mujjoon a wàcc ci yonent bi yonent leeralu ko dee dab ko daanaa yër yi bu ko ilaa naa yi bu ko lépp loo am sikk bàyyil lépp loo amul sikk jëlal wala defal bàyyi itam yàlla niral ko yonent bi ba ci loolu mu teg ci geneen karaama juddoo tey ba fii génne àddina fële ca London mu rot ci xadis ne nit ki su deexee àll danañ nat fam juddooyee ba fa bakkanam rotee yaaxale bàmmeelam noona leeralee ko ko seetal nag bàmmeel bu am ni diggante fii ak Angleterre ñaata junnee kilomètre bàmmeel boobu taalibe yëpp xaj nañ ci yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla nañu yàlla teg ci yoon wi nga xam ne moom la bàyyi doon tracé dundam lépp nga xam ne lépp mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi yàlla buñ ci teggi suñuy tànk mbooloo mi yépp yàlla na ñu yàlla may xol yu mel ni xolam ba ci sell ak bëgg lu baax ak bëgg lislaam bëgg nit ñu baax ñi bëgg lépp lu baax nim bëggee lu baax ak bëgg nit ñu baax ñi ku ànd ak moom rek xam nga xam nga xam nga loolu ci moom ku ànd ak moom rek xam nga loolu ci moom dañ koy mu ne kii mu jaxoj nit ne diw nii xam naa ne du nit ku baax waaye mënumaa ñàkk dimbalanteeg moom ndax baayam dimbale woon na suma baay ci jamono joo xam ne sama baay soxla woon na ci ndimbal déggal ko lëre boobu du ne moom la jëflantee direct ni baayam la jëflantootoon muy sàmm loolu waaye ba tey loolu xadis la yonente bi sallallahu alayhi wax na ne bokk na ci nga baaxe sa baay gannaawam nga baaxe ñooñ cofeelam lépp lu mu def rek xattaa waxtaani olofam soo koy déglu nii te xam alquran xam xadis jumla jum daane rek mën nga koo daane mën nga koo delloo ci alquran wala nga delloo ko ci xadis sëriñ bu mel noonu lañu yàlla may gannaaw sëriñ bu gën lañu yàlla may nañ jéem a nekk ñu ñu gën topp xatawaat yooyu moom yonent bi la toppoon ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman falmasiru baidu gannaaw yonent bi la toppoon ñun moom lañ topp suñ ko toppee rek na ñun wóor la rek ñun ñu ngi ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ñu yàlla saxal ci tànk yooyu ñu ngi sant yàlla bu baax di dol di dellu di ndokkeel mbooloo mi di ndokkeel cheikh abdullah ci sunna xasana bi nga xam ne moo ñu ko defal xiw wuñ ci am am na ci cër xiw wuñ ci jëlee am na ci cër ndax xalaatam la moko tracer moko saxal su ci nopi woon itam su taxawon ne ken dootu ko fi def itam dootuñ ko fi def te tuddu bay comme lima len wax wax léegi rek inda zikri salihin tanzilur rahmat yàlla nay sax di tuddu bay daa iman yàlla nay sax ci yoonu bay daa iman ba bés ba ñuy taseeg moom mu gërëm yàlla gërëm ñu cheikh amadou tidiane gërëm ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ni dund ci aljanna te nek ci jullit yi bëggee yàlla te dee ba nga xam ne nag li na suñ jëm dee jëm yàlla di nga xam ne jenn ji rek moo kon ñu continuer waay waaye dañu continuer waay yi nga xam ne dañuy wax laxasaar am na xam ne yoo xam ne dañu laaj xam ne ñu moo ko def moo xam ne daan na participé ci jotaay bi def na na Cheikh Amin ci ko Cheikh Amin فليتفضل مشكورا حابها سوء الذنوب سماحة ولذا حكوا أن السماح رباح وبها وبالعهد الوثيق وسائل تدنو بها الثمرات والأفراح زود لموجات المزارف زفرة ياتي بها المطلوب والإيتاح تمحو دموع العاشقين مآثما ومن التواجد والهوى أرباح حصل المراد بطيبة حصل المراد بطيبة فتنعموا ما في التنعم جهلة وجناع فإذا بدا رجب على أفق المنى نادى المكارم للهداة فصاحوا هبوا هبوا هبوا إلى نبع المعارف فانهلوا نهلا وعلا للمناهل راحوا وتعانقوا وتصافحوا وتسامحوا طبع الكرام تسامح وصفاح فعلى مرابع طيبة وبعيدها طابت لنا الأنفاس والأرواح فترقرقت أجفاننا ترمي الدموع على السطور فزالت الأتراح وتساجلت أقلامنا أي كلمنا فتوالت الزفرات والأمداح والشعر في رجب يزف, يزف بناته لجمال من تصفو له الأمداح والشعر في رجب يزف بناته لجمال من تصفو له الأمداح وارسم على وجناتها بالوجد ما لا تمحه طول الزمان رياح وإليك يا مهد المكارم طيبة بعد السلام تحية وأحاح يا مهبط النور المطلسم رحمة منك الهدى وسعادة ونجاح شرفت بك الكوس المفجر فيضة سقيت بها الأرواح والأشباح لولاك ما طلعت على أفق الهدى شمس ولا قمر ولا مصباح لولاك دامت بالجهالة ليلة وتستر المرضوح والمرضاح يا طيبة طابت عليك مقامة لمتيم تحدو به الأتراح نفديك بالأرواح والأموال يا من قد أتى من نوره الإصباح عرض بكر خيره عرج كالخير المطول عهده سلها العمامة ثم أين صباح بمدينة وبروضة العلم الذي بمديحه الأقلام والألواح واقطف من الأنوار باقة نشوة من شمسها يبغي الهوى يرتاح واسجد على تلك المعاهد سجدة تسبيحها الزفرات والأمداح قل في أبي إسحاق أحسن مدحة لتنل بها ما لم تنله مداح قل إنه معنى الجمال وحرفه ومن الكمال سجيحة وسجاح واسجد لدى ذكر المحاسن سجدة لتزول عنك شكاية وفلا man ba may maqamatul hariri dafa meloon ni dama ko mokkal ma ne ko ba nga koy jàng wala ba nga koy jàngale mu ne ba ma koy jàngale laa la wax ndax jànguma ko ci kenn te maqamatul hariri yéen ñi jàng xam ngeen ne arab yi dañuy wax ne sulusul lugal arabiyya mi ngi ci téere boobu kon xam ne nag yàlla may na la rek fatfu nga xam ko te jàngoo ci kenn loolu fatfu mënu ko Baay Amadou Thiam radiallahu anhu bi ma ko nettalee wax ji mu ne ma maam alaaji Abdoulaye dafa mas a oote dars ci kanamam nga dafa bëgg alaaji Modou Zeynabou jàngale maqaamaatul xariir te na ñëpp teew mu ne ñëpp di teewee dars bi ci kanam maam alaaji waaye bàyyi daawut teew mu ne ba mu dem seeti ko ne ko yow ni alaaji mel ak yow di jàngale te yow doo teew mu ne ko man daal lu ma jàng ci maqaamaatul xarit dama ko gisut mu ne ko ah foo ko jàngee mu ne ko man daal gisuma fu ma koy jàngee ya, jàng mën naa ko daal mu ne ko su ma la joxee téere di nga firil ma mu ne ko waa bu baax bàyyi ma du mu ne moom itam mu ut ma seeti bàyyi tegal ko téere bi mu ne mu firil ko maqaama bu njëkk mu gën a neex bu bàyyam gën a neex bu alaaji mu ne ñu jàll gën a neexati bu ñetteel bu gën a neexati mu ne ko yow man ngaa ñàkk teew <laughs> dégg nga loolu laa loolu laa waxoon de ma dolli ko ci wax ji borom fatxu boobu ak fatxu beeg yépp waxtu woo ko gisee rek dangay ngay fàttaliku bayt bii bu sëyri yu sëriñam xadd naa la gaayata maa yarumul muntahi min rabbihi wa lahu ijtihaadul mubtadi lim bëggoon ci boromam yépp am na ko waaye waxtu woo ko gisee rek mi ngi mel ni tey la tey la soog a commencé ci ijtihaad wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu